sëñ Basiru nag ab yëngukat la te boo bindee yëngu bindu yokku benn yax la yoon yi bu yënguwul du yokku sëñ baaraay maamam sëñ xaadim awa baax moo ko meññi miina naa ko lool ca Abidjan bu masaa kaala wi ñëw da ngay doomi Cheikh Saad Boo rafet lool am xam-xam amu fit di dox ci dëgg kon bu la meññee bàyyi fi nga sigg sa bokk yi ànd ak ñoom ñii mag la nga mag ñii ñii di say doom ngeen ñëw leen ñu sulli mbirum sëñ Baara ba ndaw ñi ko xamul woon xam ne sëñ Baara sëñ Bamba ko jur soxna Aminta Lo mais joxe woon ak ruum ci lislaam mooy ndeyam te jigéen lu mu joxul doomam ci sëriñam doom ji mënu ko am. baay bu dee joxe ku sa lay tàllalul doo am loxol doom jotul baay ndeyee nangu jox la soxnaa Aminta sedd sama te kat def na ci lislaam loo xam ne jigéen mësu koo def te jigéen dootu ko def dee ne sëñ Bamba di nga dem ba soxna Awa sa dem ba Aminta Lo dem soxna Aminta ni ko bu ko awa yëg naa wàcce baara mu am juróom ñaari weer ma dénk ko ko demal la àjjana loolu man na may guy mbind lu ne may na dara xudus lu ne yow nag nun Baye Fall yi war na laa bëgg da ngaa niru waa kër Cheikh Ibrahima Fall te kat dinaa la wax lu bëriwul Baye Fall yombul de jullit bu dox mooy taalibe taalibe bu dox mooy murit murit bu dox mooy Baye Fall ndax jullit garab la taalibe matt la murit këriñ la bàyyi faalub doom la garab des koy gor matt day tàkk këriñ day boy waa nag doom day feyu xal yow da ngaa doom doom nag bu laalee cin cin weex bu ko cin laalee weex koy boyal teggi ko bu ko xal sóoroo mu fay ko garab gu dugg ci bàmmeel des na la gor matt gu fa dugg di nga tàkk këriñ gu fa dugg di nga boy waaye nag doom mën naa jaxasoo suuf mën na lu ko dara mooy murit saadix